بسم الله الرحمن الرحيم يا رب المشرقين ورب المقربين فبأي آلاء ربكما تكذبان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yen mbokk yi yen xarit yi yen soppe yi yen nitu yàlla yi maa ngi leen di siyaara siyaara bu gën ci siyaara yi di wax fa tabarakallahu ahsana alxaaliqin ma dellu gannaaw di ñaanal ñi jiitu al axira yàlla may leen ajjana ajjana firdaws ajjana xuldi ajjana boo xam ne bi tajri min tahtiha al anhaar xaalidina fiha abadan abada maa ngi leen di siyaare mbokk yi سما وقتانو تيدو يجي دمي دفري ماركريك ندخ كونك تيواري مي أمن خل تداي خلات ين سنغالي سنغالي سين يبا أم خل فتبارك الله دفا أم نيو خمني دنيو أم خلو نيت كو am ñoo xam ne ñii xelu seytaane la ñuy yore am na ñoo xam ni ñii xelu muccirim la nit ku bon caay-caay moo tax yàlla ni yàlla boole ñu ci ñu am xel ak xelat bu rafet bu baax ci mbiru réew mi rek laa bëgg sànni ñaari kàddu mooy ni dafa am loo xam ne li waratuñu ko may occasion boo xam ne dina def tatawur ci biir réew mi maanaam développé ci biir réew mi ndax gis ngeen musiba bi ñu jógee dafa mel ni ay junni julli at la ngir métit ak naxar yàlla nag day seetlu jàmm mu ngi ñu seetlu mu delloo ñu ci suñu jàmm delloo ñu ci yoon boo xam ne bii day jëm ci jàmm bu ñu dof dofloo nag bii yoon du ñu daf ñuy seetlu bàyyi ñu ñu mbugal ñu léegi yéen waa réew mi jël ngeen seen réew dénk ko ñu baax ci loxo yu rafet yu set bu ngeen may occasion nag caay-caay yi pour ñu ñëw di del ci kaw nguur gi yéen na ko def dégg naa conférence de presse ñu ne ay opposant ñoo koy def ñan opposant amaguñu opposant ay bandi ñoo nekk ci suñu kanam bandi yooyu le ñoo teg réew mi ci musiba bandi yooyu le ñoo jàppoon xale yi di leen tëj ci kaso bi ci defuñu dara bandi yooyu le ñoo jàpp ay doomu aadama former leen jox leen fetal ñu tiire ci kaw xale yi di leen rey bandi yooyu le ñoo nekkoon di kompoloo ak européen yi ak yeneen nit ñooñu leen bandi ñoo tajoon Ousmane Sonko taj Jomay taj ñoom Omar Diagne ñoom ñëpp moo leen taj ñooy bandi yooyu ñoo leen tajoon kon nag bu yàlla jëlee réew mi teg ko ci lu rafet ngeen di seet ñooñu leen dañuy def conférence de presse dama leen di accuser ne yéen gamu leen yàlla gamu leen yonente bi ndax yàlla moom ci boppam moo wax ne bakken pour bakken boñ pour boñ dund pour dund lu bon liñ doon def yëpp na ngeen ko kappa ci seen kaw te bañ a ku leen wax ne mu ngi masla rek seen non la képp ku dul seen noon du masla léegi seen parti boobule waratul am ci kaw Sénégal ndax ay fen lañu nekkoon di toj parti jàmbur yi di leen dissoudre seen parti boobule ñu groupe woon di fen bi dem CEDEAO pour maanaam ñu yàq parti Ousmane ko seen parti boobu ñoo jàppoon gaa ñi nga xam ne ñii dañu nekkoon ak Ablaye Wade ak ñu nekkaloon ak Ablaye Wade seen parti boobu moo leen tajoon kon nag na ngeen mën a seetaan ngeen bàyyi ñooñu ñu ne dañuy def conférence de presse Seydi Ousmane Seydi Diomaye seen loxo dafa set seen loxo dafa jub seen loxo dafa bark moo tax population bi wóolu leen yàlla dimbali leen li am mu am mu xew waaye bu leen ànd ak seen jàmm ngeen yaakaar ne réew mi mu ngi ci jàmm xam ngeen waa réew mi tax ñuy kontaan ñu dégg ne def nañu mandat de arrêt Macky Sall ñu jàpp ko yeew ko ñëw atte ko ci tribunalu Sénégal xam ngeen lan moo neex population bi mooy sàcc yi nga xam ñoo ñëwoon sàcc seen alal làq ko di jéem a yoonal di jéem a indi ay argument di lay ñu jàppaleen yeew leen xam ngeen li tax réew mi kontaan mooy tooñ bu ñu la mus tooñ ngeen teg ko ci kaw taabal bi ñu xool ko seet ko ku ñu war a atte ñu atte la xam ngeen li tax population bi kontaan mooy ñi doon jël xale yi di leen rey ak ñi doon jàpp doomu aadama di leen tacc sakk ay fen fu nekk ci monde bi di tasaaroo pour naan toog ci biir réew mi la pour Sénégal yi kontaan il faut ñu def ko atte leen atte mbugal leen punir leen

déggatuma ngeen wax dara ci Alaaji Juuf awka di poppal woy awka di bandi woy diguma ngeen dégg dara ngeen di ko naftali ci Majoor Ismaïla Majoor waaw dégguma ko ngeen wax dara ci Ismaïla Madior dégguma ñoom Moustapha Diakhaté ngeen wax ci ñoom ma ne ana ñi doon ci tooñ population bi waaye xam naa ne dangeen ngeen paregul ndax toogagu leen moo tax li ma ñaan population bi nañu defar ensemble bi ba majorité bi ñaw ci loxo usmaan ak Diomaye Yen ni ngeen soxla yep di ngeen ko am ndax ñun mag ñi àndoon ak yen di xex guddi ak bëccëg ñu ngi taxaw ci distance di leen xol am nasa sax ci bir mag yi ñu ci jaaxal dañu jaaxle dañu leew gañu fu ñuy jëm ñun xamuñu ko dafa melni ni dañu bayyi wa kar mag yi leen xalaatuñu ko sax xalaatuñu ko ñi nak dañuy nek njàccaar ci am xel di xelat di setantal di setal inshallah allah ñep ñëpp leen atté suma jigen yi suma jarbat yi dégg na ngeen di ma laaj am ni ñu am na ño xam ne ñi ñoo ngi ñaxtu ne Ousmane ak jomay ñun xamuñu fan la ñuy jàpp ndax ça fait trois mois léegi jàpp guñu gaañi ma dafa gaaw lépp nañ ko teg ci yoon waaw atte bi dina mel ni atte Aliyun ibn Aba Talib ak Omar ibnul Xataab am na band yu gënoon a dangereux ñu mel ni ñi ci jamono yooyu le dañ leen atte ñañu war a teg ñu toj leen ña ñu war a rey ñu rey leen jëbbaleen seen borom li tax ma jël antenne bi tey mooy ñun waa Kër Macky dañuy def conférence de presse naka lay niiw niiw di defee conférence de presse niiw def war a tëdd dafa ñu ko taral ñuy jeexal nañu xam ngeen ne fi ba cent ans dootu leen jël nguur ci biir Sénégal jeex na ndax ay ñu am dignité ñoo jokk jël seen réew te xanaa Sénégal yi ak sénégalais yi kenn doful ba ñu bàyyi leen léegi ngeen di ñëwati sas contraire dañ leen war a atte summi leen ngeen delloo li ngeen nabb lii moo fi nekk ñu ngay dof doflu ñu ne ñu ngay def plan pour jema a bouleverser nguur ga jema a ci wa am ngeen da ngeen mëna a mëna katch a mëna fenn yene a nar préparé nañu lo xamni ne leen xamu leen ko te inshallah allah ay jamono di ngeen ko gis gaañ ñu bax ñi maa ngi leen di ñaan kenn bu mu jaaxle incha allah du Ousmane ak Diomaye rek ñooy liggéey ñu bari ñoo ngi leen nekk seen entourage mag góor jigéen mag ndaw ñépp ñu ngi toog di xulli di xool na ngeen mun muni di naxante di fen seen jabar yi ci kër gi ne man dafa ma làqal yi kenn xamu ko la ma yóbbu kenn xamu ko tur ya ma def numéroté ya mooy koofar ya fa ma nabba kenn du ko xam jënd naa lii def naa ko dajale yépp ba mel ni yowmal xiyaamati nit ku nekk la mu doon def ci lu baax mu gis ko li mu doon def ci lu bon mu gis ko yéena mën a naan uffin lakum dañ leen jëpp ñun doomu aadama yi ndax koo xam ne yàlla daf la bind ngay war di fen di dajale conférence de presse seen parti bi parti bu deex la ndax parti fenkat la parti wuyu la parti dajal la dajal mooy bandi yi ak wuyu yi gang yi gangster yi am naa yaakaar ne Ousmane ak Diomaye sen xel mo ngi ci loolu le parti bi nga xam mo done complot ak yawo ñu tas ko mu génni Sénégal jël ko fi déraciné lepp lu ci bokkoon ci ay wuyu conférence de presse gaz lacrymogène ngeen di duggal fofu le bu ñu tasaaru bu leen ko nanguwaat ñuy def confrance de presse ci réew mi bu nekkoon ne démocrate la ñu ñu bàyyi leen ndeysaan suma benn goro xam naa ne yàlla dina ko dimbali barki démba la ñu ko fusillé mooy Donald Trump Donald Trump ndeysaan am na accident barki démb waaye yàlla def na la gën a rafet ci loolu le ñun dañuy waxante ak ñooñu duñu ko wax ci antenne ci télévision wala ci rajo waaye des bu ñu jëlee seen Amérique ci jamono yii di ñëw bu ñu yeew gars yi ci Amérique sax am nañu dinañu ñëw dimbali ñu maa la ko wax li ñoo xam nañu ko te mën nañu ko waat te ñoom dañuy jëli réew ma nag républicain yi dañuy jëli réew ma xam nañu ko te bu neexee yàlla danañu fexe ba Donald Trump ñëw visiter Sénégal man ñu dimbali ci bandi yi fi nekk nii nekkul nag li mu nekk suma goro moo tax waaw nekk lu mu denc ci suma wàkkar jabar ji jóge Slovénie ndeysaan nekk loolu moo tax may wax waaye balaa lii ñu fas yéene nañu loolu le dañu fas yeneen ñu ñëw dimbali ñu ci bandi yi ba Philippines nekk ci danger bu mel ñu suñu réew Donald Trump moo leen dimbali waajarey fa cinq mille personnes waaw waaw cinq mille ren di leen ren bi te incha allah bu neexee yàlla dëgg mu ngi ñëw ci suñu biir réew Sénégal dëgg mu ngi dëgg mu ngi dikk léegi bandi bu ñu jógee ñu ngay attaqué nguuru Sénégal bu bees bi nguur bi nga xam ne bu nguur gu propre la nguur gu yiw la ndeysaan ndeysaan fa tabarakallah yal na yàlla dimbali ñu mais bu neexee yàlla danañu leen àttee gaañ yi dangeen ngeen ma contacter tey ci ngoon si ngeen ne ñoom Abdou Mbow xaw ma kan ñu ngi def conférence de presse ma ne wàcc daanu moo ci gën a gaaw nañu daanu moo gën ci seen wàcc mi xam ne yi ñuy def du dem fenn incha allah maa ngi leen wax ne gaañi hayyakumullah da ngeen dund dund gu rafet di ngeen kontaan yéen ñëpp na ngeen manko nekk ci gëna nguur gi ñu jëm kanam te ñii nga xam ne ñu tardé loon ñu parpar yeen jamono la ñu leen war a commencé atte di leen taj di leen door fa tabarakallah ki doon wax ak yéen tey mooy Cheikh Ousmane dama ne il ma sànni ci ay kaddu yoo xam yi lu bari beneen bés ma door a waxtaan ak yéen ci histoire u Sénégal dina wax ne asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu